defal suñu jaraaf bi nga xam ne ba ñu sosee kalabaas ba tey ñu nag moom kenn fekkuñu ci moom bañ koy fal fii keroog jaraaf ñun ñëpp la solo niroole sunu un franc demu ci mu jënd jox ñu ñu nirooleel ko niroole fu ñuy jëm moom lañ doon sagoo ndax moom rek lañu amoon bu ñuy soog sax suñu kalabaas fu ñu jëm moom la ñuy sol grâce à moom ku ko fi seet si donc bu mu ko jox edd bu mu ko jox mu jébbal ñu lépp tabaski bi bi ko fi politiciens yi ñëwee seet si saaku soble yeeg pombiteer yi daf ko jël yëpp jébbal ñu ko ñu seddoo ko ñu ñi suñu biir kon ñu ñun amuñu fayam nit ku baax ku ko fi seet si mu woo ñu présenté ñu bëgg lu lu suñu Calafas fi jëm kanam kon ñun amuñu fayam lu ñuy def fii moom la ñuy jiital ndax ba ñuy door muy metti gisuñu kenn moom mii rek la ñu gisoon kon jaraaf jërëjëf jaraaf jërëjëf jaraaf buñ jógee ci loolu am kenn koo xam ne moom kooku moom mention spéciale muy ajaratu Tina Sow mi kooku li ñu boole dafa foor kalabaas boole ñu bëgg yaay moo ñu boole dama daan jóge jawbe di jaay di yenu sama paanu diwtiir naaj bu tàng jël dugg këram di ko jaay lu mu jënd ne ak sama yaay lu jënd ne damay jëndal sama yaay ma ne ko man jàpp naa la ba si ay ndax man dama bëgg sama yaay ku bëgg sa yaay dama lay bëgg loolu la ma booleek moom muy lu fort loolu ëpp na vingt ans sama diggante ak moom kalabaas bi boole mu nekk Médina di fa def lu rafet yëkkati kalabaasam ne ma may mu ne doo yëkkati kalabaas ma ne ko ah gël tàppe mënu ma fa yëkkati kalabaas ndax mbooloo mi pour nga boole leen day metti boobu at boobu jàll beneen at bi mu ñëwati waxati bii dafa wañ sama loxo ne ma bokkal ne ma defaral calebasse foog nga def calebasse njariñ yi ci calebasse yëpp expliqué ma calebasse yëpp ni muy demee ma ne ma ñëw expliqué samay nit ñoom ñu d'accord ànd loolu moo waral lii tey moom mii tey mu ci 19 calebasse te benn la démarré woon dama leen di ñaan nañ góor góorgóorlu jàpp xam ne dina baax commencement boo gis nag dafa metti dafa metti day am ñu bëgg am ñu bañ waaye ne ñun ñi nag nañ jàpp tàllal yàlla sunu loxo jéem a xool ci kanam bañ a gestu yàlla dinañu jàppale. di leen waxaale itam chaque fois réunion dama leen di wax ku ci am sa looy wax wax ko biir réunion bu ñuy xeex si biir ñu xeex. bu ñuy xuloo ñu xuloo suñu paree bu ñuy ànd ñu ànd xam ne liggéey moo mel noonu ñëpp mënuñ bokk point de vue mais duñ ko def dañuy génn ku ne di wax mais léegi li ma bëgg leen xamal tey jii fii mooy social bi ñu doon natta moom la ñu jël jënd si ay denrées pour distribuer ko membre bu nekk jëlaale ci intérêt bi tey moo ñu permettre ñu def lii kenn ku ci nekk nga am si sa mbubu ak lii ñu fiy def peut-être après ak liñ ciy def bu subaa incha allah ci kàttanu yàlla convoqué naa ñëpp à partir de midi à partir de 11h ku ñëw siège di ñu fa fekk jënd nañ tam ay kit alimentaire ci sociale bi. ku ñëw di ñu fa fekk boo ngeen ñu fa fekkee li ñu war leen teg yëpp dinañ leen ko jox ku ci am tamit lu la leen taw si itam nga waxaale lu nga laaj sa question ñu répondraale la comme fii nag jotaay bi jotaayu fo la ñun dañuy fo ree bégee gërëm nañ ñëpp nag sant ñëpp mention nag à Tina Tina ñun amuñu fayam amuñu fayam ba tax na Tina yaag sa mbooloo am na surprise bu ñu la defaloon Tina maa ngi lay nuyu di la ziar Jaraf ma ngi lay nuyu di la ziar di wat mbolo mi di wat suñu wa biro bi di sante mbolo mi di len gërëm di gërëm nak Maymuna Njaay ndax tubar fakkaal la sha allah ñun ci koñ bi lañu juddo fi lañ yaro fi lañ màggee man guleet li musuma ko fi gis du benn génération bu ko fi def kon mention spéciale à Maymuna Njaay nañ ko ñaanal yalla gudd fan gu ànd ak yàlla bàyyi ko borom këram mu yàgg ñu gunge parce que lii njëriñam la suñu njëriñ la lii mun na buñ ko jàppee mu dëgër mun nañ dem ba suñu doom yi dinañ si jëriñu kon nag nañ leen téye mu dëgër ndax looy wuti feneen daa fekk sa gox moo ko amul te loolu suñu jaraaf bii moo ñu ko enseigné dee leen toog di liggéey si seen gox loo leen am mu am mu des si seen gox moo gën ngeen ni wàlli jiwaan wàlli jiwaan baaxul kon nak munas ñu ngi lay remercier di la ñaanal yalla di la ñaanal yalla di la ñaanal yalla encore di la wax ne nak nga muñ ndax jité yombul surtout ma ay jigen sa yaay ñaanal na la te lool la dom bu nekk di ñaan yalla ci li ñuy jité lañ ci gis kon nak yalla nañu yalla defal jamm ñun ñëpp muy suñu njëriñ ñun ñëpp nañ leen japp mu dëgër bu ëllëgé bu ñu liggéeyee ku ñu jox ñu dem ku ñu joxul ñu dem. may mëna nak nag kenn amul loo ko fayee dañ koy bayé ak yalla yalla muy teunk doom aadama di may doom aadama yalla ka yalla teunk yalla ko yalla may mbolo mi yalla ka yalla fulandiir xalé yalla leen yalla defal jàmm xalé yaru ngeen suma ma da ngeen di kaf ak man di reeg man ta xam nga ni ñu ci bari fi lañu juddo sama kanam ca jamonoy barak ak neegu ñax barki dem bo ñay amna suñu xamni ci lañu juddo kon nak man ben jaaxaluma damay ñëw rek and ak yeen di foo di nebu sanguwu ma siisu leen ma boddatu leen ma may ma nag su ma ñëwee dina ma ne ndax dangaa ndékki tey si suba la mujj ma ne ko ndékki naa ba pare su ma ñëwee mu ne ma ndax dangaa añ tan caama lan la tan caama lan la di waxtaan ak man lu mu war a wax ak yaayam da koy man ak man ndaxte yaayam sama rakk la loolu laa bëgg ngeen xam ko yaayam sama rakk la bi mu yaroo fii nekk xale bu tuuti muy ànd ak sama rak may mu na aw ma lenn lu ma ko mën a wax dama koy ñaanal yàlla ak mbooloo mi yéen ñëpp yal na yàlla may wér may leen gudd fan ci barke yonent bi jiit nit yombul mboolante surtout ma jigéen yombul jigéen ak xale ñoo yem il faut nga muñante mus naa la wax may mun a njaay li nga def fii ak li nga wax fii ak li ngay bëgg a def seetal yàlla yaa tag bul seet kenn ndax boo seetee ker rek doo mun a jiite doo mun a ànd doo mun a eh, jiital nit yi da ngay jóg rek yàlla yaa teg dangay ngay nga seet nit yi bul seet nit yi seetal ci yàlla ak soxol ak li ngay defee ak lu baakaay li ngay teg nga jóg yalla la faccat lo bëgg yegg ak so morom yi ak yépp ak njaboot yi yépp yalla la yalla eggal fi ngeen di bëgg yegg yalla leen yalla eggal yalla leen yalla nafal seen cet bismillahir rahmanir rahim mbolo bi yeen ñëpp ma ngi leen di nuyu ku ci nekk nak ci turam ak santam di door nak gi sante maymuna ndjay kaddu yi nga témoigner sama digënté ak yow lolo am and bu yàgg rek deug la l'an 2000 la ñu xamante donc ñu ngi ci 2022 macha allah yàlla na ànd ba yàgg ba suñu sët yi ji ànd incha allah may sant nag waa Gueule Tapée yëpp ndax woote ñu wuy si la yombul nit bëgg na kalabaas ut ay nit ñu soofantal ko kon yéen tam ñi nga xamante ne yéen a joxante loxo ànd at bi yëpp muñalante di waxtaan ji kaf ji foo ji ree ba egsi fii tey di ko santee yàlla subhaanahu wa taala yéen am ngeen jërëjëf ak jaaraama ma ñëw nag di wax ci calebasse yi calebasse yi comme ni ngeen ko déggee fépp rek développement communautaire la ñu koy def ko aussi pour mu jege askan bi comme ni ko tur bi waxee ngir jóg pour émancipation économique femmes yi ndax léegi dañu gis ne que jigéen ñi kenn toogatul ku nekk yaa ngi bay fenn sa waar pour mën a jàpp sa njaboot ndax yaay ñooy yaay ñooy borom kër ñooy xaritu jëkkër yi ñooy sœur ñooy lépp ci biir kër yi donc am nañ poids bu diis bu ñuy peser si biir kër yi donc waratuñu toog rek di tàllal fenn loxo wala ji toog ji xaar sa jëkkër lu mu indi mu am mu bëri mu néew nga di ci contenté wu léegi donc da nga war a participer ci kër gi nit na pour mu participer ci kër il faut mu yëngu ci dara looloo indi kalabaas yi kalabaas yi nag comme ni ko maire bi waxee seen xaalis la boo dencoon tey ji munoo chaque jour nga denc sa armoire xaalis di nga ko laal donc calebasse yi da lay permettre nga dajale au bout de l'année di nga am somme boo xamante ne tey jii di nga ci faj soxla wala nga démarrer ci benn activité boo xamante ne dina la jëmale kanam donc calebasse bi loolu la ñuy ñaan rek ngeen gën a jàppante gën a dëgëral seen diggante gën a nag and ak seen présidente ndax jàmbaar la li tax ma ne jàmbaar la première calebasse tabar fakal la sama sa euh, xaalu xii na duñ koy waxee macha allah macha allah gis ngeen activité yi nga xamante ne déroulé na ko ci année bi du man maa leen ko wax mais maa ngi seen groupe whatsapp bi maa ngi suivre activité bu mu defit ñëw na ci man xool ma waxtaan ak man ne ma lii laa fas yéene def ñu kii ko parce que tëb première année rek daal di def ay denre yombul tëb première année jënd nag yeew def tong-tong yombul boo leen ko weddee laaj leen ñu yor calebasse donc mari euh, comment ça ñu ngi lay sant di la gërëm di la encourager encore yoon bi nag dafa xaw a metti parce que andu jigen dafa metti mais ñun ñëpp rek ñu boole xol yi rek joxante loxo bu soobee yàlla fii léegi déwén parce que sama juróom 19 euh, calabas yi muy tudd dama nekk sama quatrième année moo tax kon nag yéen tam fii ak 4 ans incha allah kël tàppe rue yëpp incha allah dina am calabas mun ngeen fédéré ko mu nekk ben, ngeen mën def nag. li nga xamante ne nag moom lañ koy ñaaxee tey mooy na ngeen fexe dugg ci formation yi parce que xaalis boo ko jëlee te amoo ci loo ko liggéey da nga koy lekk mu jeex. wala nga dugal ko ci xew wala nga dugal ko ci leneen léegi nag ren incha allah boo leen dooree na ngeen ñu jege ñu xool nu ñu leen di booleek nit ñi ngeen mën a def ay formation mën a am foo leen investir seen xaalis pour que ngeen mën a am tamit éducation financière ba nga xamante ne xaalis bi di ngeen xam li ngeen ci war a laal ak li ci warul laal ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp may jéggalu nag ci kàddu yi waroon naa dooree nuyu jaraaf ñu ngi lay ziar bu baax a baax Lébu Ndooy non la waaw kañ juuma mataas la xaw ma naka ni ngay waxe donc ni ngi len di sante yeen ñep di len gëreum may sante aussi sama délégation bi ànd ak man ñu ngi bàyyi seen soxla yeb vraiment fuma jog rek ñu ànd ak man sama maire yi baax yi di del delo cant ak assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dañ koy santane rek di ko diko di ñaanal yalla encore guddu fan ak wér ndax dafa ñàkk ki ñaan ñàkk ki ñaan weesuwul nga gis lu baax yéene ko sa moroom tiñaa yal na la yàlla bàyyi sa borom kër ak sa njaboot ak sa meer yu baax yii ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di leen ziyaar membre bureau bi nag ñoo fas yéenee décorer Tina la marraine te xeeb nañ ko nag dañuy door rek dañuy door rek comme ni ñu jaraaf jàngal rek xool ñee tubaarkàlla macha allah ah jasneer bi ñoo la ko décoré bu ñu amoon leneen tam tubaar fakàlla macha allah jox la ko vraiment ñoo la gën a kontaan di la sant di la gërëm nga paas ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm doo lay jën ndox doo lay saxaar raay wala balaa maa tàmbali damay nuyu sant képp koo xamante ni yaa ngi famille Diawéne rek maa ngi lay sant di la gërëm parce que dëkkandoo kat jàmm moo ci gën te yàlla dogal ne jàmmal nañ ma maa ngi leen di sant sant bu amul àpp jël nuyoo bi di ko teg su loxo Papa Diaw du nuyu kilifay koñ bi yëpp su mën a kilifay koñ bi bàyyiwuma kenn góor ak jigéen di am ñaari kàddu yu gàtt yu may sànni ci Maymuna Njaay mii ak waa Calabas bi Maymuna Njaay kalabaas boolewuñu ñun ñaar lu ñu naan lu fàq nuroo ñoo bokk benn maam pàppam sama maam moo ko nàmpal kon fii boolewuñu ñaari nit dinañu rombante sorente loolu mais saa yu ñu toogee jegante may Maymuna maa ngi lay wax lenn nga jàpp ka tey amul kenn kuy bokk sa kalabaas ñu koy gis di ko yërëm kooku man maa la ko assuré fii dina law ba jaaxal la ren de weesu na mais ay at moo ngi ñëw yàlla nañu yàlla may fekkee ak tal ba déwén ci kàttanu yàlla amul kenn kuy ñëw fii te doo fajal sa boppu sa soxla te yàlla mii dara tawul dina leen jàppale damay faral di wax fan yële dama ko gisoon ci gannaaw ma woowoon na Njaay di ko wax ma ne ko na Njaay man dama dem fan gis doomu gël tàppe yëpp def transfert de vote dem di voté fan dem Médina gis doomu gël tàppe yëpp def transfert de vote di voté Médina mais ñun ñëpp bu ñu jëndee gox bi dem ci goxu jàmbur kan mooy defar gox bi. cinq mille francs wala dix mille francs bu ñu lay jox foofu xalaatal sa njaboot dafa nekk ci koñ bi di daw bu feebaree cinq mille yooyu bokk ci fajee mu jeex bu feebaree dix mille francs yooyu ñooñu nga seeti si gox yooyu mënuñu la jàppale. bay say oom gël tàppe gi waruñu ñee beneen gox gox yëpp ay nit ñoo ko liggéey du ay malaaka. xool leen ci calebasse bi ngeen toog ñu àndandoo defar sunu gox parce que gox bi ñun kese moo ko mën a defar du politicien du kenn parce que képp ku la defar rekk suba dina la ko xasee jàppal ma jàpp gi ngeen nekkee yàlla na ko yàlla continuer maa ngi santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp tinaa nag dégg nañ say wax tàbbiwul ci loxo ku tëx dénkat nañ la kalabaas bi nga xam ne kalabaas bii boo ko téyee téyeloo ko may mun a njaay ñun nga ko téyel te lépp lu ñu mën ci baatin ci kàttanu yàlla jàppal ni bés ni ki tey dinañ la ci taxawu bu ragal dara ami ñoxo nag sunu jigéen maa ngi lay wax lu yéeme jox naa la benn mbir su ma ko jëndee woon teg ko fii séeréer yu xam fu mu dëkk fu mu jóge ku ci ñëw boo ma ci fayul ñaar fukki junni duma la ko jaay ku la laal de man maa la wax lii jàppal lii ma la wax jërëjëf. merci beaucoup kontaan nañu ah waaw waaw waaw yow mën nga tom waaw dañu bëggoon rek nga fekkee suñu jaraaf bi li muy wax jërëjëf.